je pense que li xew dernier jour yi am na plusieurs rebondissements d'abord il y a des faits inédits je suis entièrement d'accord yaa y a des dénouements yoo xamante ne mu ngi commencer feeñ mais on n'est pas encore sorti de l'auberge affaire bi jeexagul maanaam mbirum élection la ba fii may wax ak yow campagne amul élection amul fan la ñu jëm je pense que loolu euh, waxtaan la boo xamante ne dinañ ko mën a seq fii mais lu njëkk a inédit mooy un président de la république bu jóg un bonjour fekk ñëpp pare candidats yi ne dañuy dem commencé ne dañuy war a nekk campagne électeurs yi dem di jëlee ñi jëli seen carte ñi di préparé wu di déglu programme yi di xool ku si ne fan ngay nekk coalition yi taxaw président bi jël d'une manière unilatérale un décret daal ne décret bi daf may permettre ma arrêter ma stopper le processus électoral À partir de, de ce moment, il a consacré ce que j'appelle un report synédié c'est-à-dire dafa reporter te xamuñu kañ la date bi di ñëw parce que ñëwaguñu sax assemblée nationale d'ailleurs dans son discours il a dit xaw ma sax luy xaw assemblée nationale mais lui il a décidé de stopper le processus électoral ñu pare si lool dem si assemblée nationale mu am un report daté lu may tuddee report daté mooy yóbbu nañ ko 25 août jële ko foofu à travers un amendement yóbbu ko 15 décembre mais loolu mu doon loi constitutionnelle boo xam ne bañ ko gisee wax nañ ko ñu bëri foog naa wax nañ ko que ne dafay toucher une clause intangible boo xam ne c'est lié au mandat du président de la République bi nga xamante ne ne dañ na cinq ans la parce que su dee article 27 bi moom moo wax na ne le mandat du président de la République est de cinq ans article 31 bi dafa euh, daal di dafa dafa placer les modalités temporelles c'est-à-dire que fan ban moment la ñu war a def élection yi donc dafay effectivement dafa am incidence si mandat wu président parce que ñoom seen alinéa 2 bu ñu def seen loi bi gis nañ euh, article 2 bi di moins gis nañ ni nee nañ effectivement président dafay topp euh, report bi maanaam dañuy allonger euh, candidature am loolu nag ñun yàgg nañu wax ne conseil constitutionnel mun na ko déglu parce que dafa amoon décision bu 2016 bu 2006 boo xamante ne conseil concerné dafa ko génne en même temps en France am na aussi de 2 septembre 1992 benn décision bu conseil concerné boo xam ne ñoom ñaar ñëpp d'ailleurs dañuy indi ñaari limite au pouvoir constituant parce que en réalité conseil constitutionnel amul le dessus sur le pouvoir conscient parce am na doole mais mënul am ëpp doole kuy koo xam ne peuple moo ko teg pour mu voter par contre pouvoir constituant bi si boppam daa wutal boppam moom si boppam ay limites dans la constitution qui sont des limites temporelles et des limites matérielles limites temporelles yooyu soo ko indee Sénégal mooy président de la République tey jii su amoon su ko président assemblée remplacé woon tey président de la République président assemblée mënul def révision constitutionnelle mënul nekk su dee président de la République dafa évoquer ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels muy article 52 président de la République mënul def révision donc loolu ce sont les limites temporelles mais dañ léegi nag dañ siy yokk beneen limite ce qu'on appelle les limites matérielles limite matérielle boobu ba ñu koy génne 2006 y avait pas encore la loi de 2016 mais dañoo jël ce qu'on a la forme de l'État la forme républicaine de l'État mu nekk limite matérielle comme nu mu nekkee limite matérielle en France ñu en 2016 dañu jël ñaari euh, mbir ba ñett modalité de l'élection euh, le nombre et la durée dugal ko si biir article 7 103 euh, boobu alinéa 7 bi mu kooku daal di indi daal di indi pour clause intangible loolu nag lu muy tekki mooy par extension évidemment clause intangible nu mu nekkee woon si la forme républicaine noonu lay muuree également la nombre et la durée de mandat donc jàppoon nañ ne effectivement le conseil constitutionnel mën na ko xool mun na ko saytu et je pense que loolu la conseil constitutionnel def maintenant euh, y a le décret boo xamante ne ne moom moo arrêté mbir mi conseil constitutionnel saisir nañ ko joindre na les deux procédures daal di génn benn verdict boo xamante ne dafa annuler totalement le décret ça veut dire que décret bu nekk en cours mooy décret bi fi nekkoon ensuite mu déclarer la la loi non conforme à la constitution maintenant effectivement dañ nekk ci problème mu délai ban kañ la ñuy def élection gis naa nag boobu ba léegi ñu jël benn euh, terme bu conseil constitutionnel utilisé wax dana les meilleurs délais ñu jël ko def ko une interprétation par extension pour faire croire que ne dans les maire délais mooy wara a ne peut-être président de la république am na temps wu toog xool waxtaan ba daal gis na ne vraiment moment bii mun nañ def élection mu soog a def élection mu soog a dem élection damay rappeler ne même si des conseil constitutionnel wax na dans les meilleurs délais conseil constitutionnel si lu mu def si ay considérant yëpp daf ko teg si ay loi daf ko teg si ay normes soo demee si considérant 14 bi gis nga très clairement rappelé na déjà lu mu jot a jël si décision en terme en ce qui concerne au moins le le la le le la durée du mandat du président de la République parce que nee na et c'est important dans le contexte actuel nee na mandat le mandat ne peut pas être réduit ou allongé tenant compte des circonstances politiques quels que soient les objectifs poursuivis c'est-à-dire nga bëgg a dialogue waxtaan dañu xool kër kër quels que soient les objectifs poursuivis mënoo wàññi wala nga yokk le mandat loolu le conseil conseil moo ko wax ci considérant 14 bi maintenant soo ñëwee ci considérant 20 bi nga xam ne si ñoom ñoom le plus souvent ci la ñuy langaamu dama bëgg loolu ñu leeral benn mbir conseil constitutionnel loolu ce qu'il faut entendre par là mooy que ne un délai les meilleurs délais mënul génn les délais yoo xamante ne la loi moo ko teg très clairement c'est-à-dire soo defee jonction entre article 63 L63 alinéa alinéa 100 163 euh, je pense bon de toute façon c'est l'article boo xam 63 alinéa 2 ak article 31 alinéa 1 soo defee jonction bi daf lay jox article 63 alinéa 2 bi daf lay jox na moom mooy bu bu bu bu euh, code électoral dafa lay wax clairement que ne scrutin bi benn jour la te dimanche lay doon ça veut dire que mënu doon lundi mënu doon mardi dimanche lay doon soo demee ci article 31 bi daf lay quarante cinq jours francs au plus trente jours francs au moins loolu lu muy tekki mooy il y a une fourchette légale qui est là boo xam ne mënuñu ko toppal fourchette légal boobu si la ñu war a def ay élections soo génnee fourchette boobu la conséquence mooy dañuy daanuwaat ci kàmb bu ñu duggoon parce que en réalité la fourchette concerne l'article 31 ironie du sort article 31 boobu moom moo nekk suñu problème fii ñu toll parce que article 31 boobu moom lañu ñu bëggoon modifier au niveau de l'Assemblée nationale moom la conseil constitutionnel daal di muur draawu intangibilité ne kooku kenn waru ko laal donc bu ñu génnee ci fourchette boobu mooy violé nañu article 31 bi te suñu violé article 31 bi bien évidemment soo demaatee assemblée pour kii élection soo demee conseil constitutionnel mu ne la du ko nangu parce que ci tu as la l'article 31 mais le conseil dafa resté vague waxul ne euh, deful injonction ne euh, président ne que sa mandat le 2 avril lay lay lay lay jeex euh, waxul ban fourchette la ñu war a organiser ces ces ces élections là alors que ci suñu constitution prévoir ñu euh, problématique boobu c'est-à-dire dans notre constitution on n'a pas prévu euh, le président qui arrive à la fin de son mandat qui est obligé de quitter il il, il démissionne pas il n'est pas empêché il n'est pas malade il est en vie. qu'est-ce qu'on on n'en pas encore là c'est-à-dire que gis nga Maïmouna le conseil constitutionnel mënul la génnal toute la constitution te pour pour juste se motiver c'est-à-dire que ñun ñoo war a xam ne. lépp loo xamante ne situation la dañ ko war a comparer par rapport à la constitutionnalité cest sa dire que par ndax méngoo na ak disposition yu nekk ci constitution. te da nga jàpp ne dañoo war a organiser l'élection de sorte que ñu mën a respecter la passation de service le 2 avril. parce que gi soo ko deful que tu fais je vais être très concret c'est un cas pratique ah tu vas violer l'article 31 article 31 dafa ne ne jours au plus 31 jours au moins. lan moo tax conseil constitutionnel daal di dàq loi bi parce que ñoom lu ñu bëggoon def dafa naroon violer l' article 31 c' est ça qu'il faut comprendre ñoom dañ ne d' accord lii la article 31 bi mais ñun dañoo bëgg a prolonger donc on va aller faire une dérogation au niveau de l' article 31 soo defee dérogation au niveau de l' article 31 da ngay génn ci cadre article 31 conseil constitutionnel dafa leen delloowaat ci cadre bi parce que dafa leen ne article 31 ko tegee c' est que en haut ci kaw dañ ne le mandat du président est donc si loolu lañ ko calibré moo tax mënoo bouger si article 31 donc ñun suñu dépassé délai boobu ce qui va se passer c' est qu'on va sorti de l' article 31 xam nga man may mun a depuis le début j'ai dit que dañu dugg si impasse parce que le président Macky Sall a créé une situation de non droit c'est-à-dire dafa stopper le processus électoral yemu si mu joxe ay injonction pour que ñu tere ñi ñu ñu def campagne c'est-à-dire que loo xamante ne ne c'est une loi qui l'a organisée avant la loi il y a la constitution bu ko organisée yow nga am ci ay prérogatives au même titre que le conseil constitutionnel et à un moment où tu ne peux plus intervenir parce que def nga sa décret pour fixer la date def nga sa décret pour woo le corps électoral ñi des c'est les cours du tribunal c'est le conseil constitutionnel ci rôle bu mu war a jouer c'est la cour d'appel su amee inégalité ak ak candidat yi et cetera donc yow moment bii waroo intervenir yow ma ñëw intervenir si moment boobu en toute illégalité et tu stoppes le processus loolu moo ñu indi difficulté parce que quand tu sors du droit complètement nan la ñuy def ba ramener wut au au niveau du droit man je je je pense que conseil constitutionnel benn même maa sax na la patat chaude parce que en réalité conseil constitutionnel su waxee ne le vingt 25 mënul nekk certainement il a tenu compte des délais pour campagne bi certainement mais même soo demee respecté fourchette bi délai campagne bi aussi daf fiy joué donc am na problématique bu am mais loolu c'est une situation qui a été créée par le décret parce que moom moo stoppé la campagne tey ban loi ngay teg Abba euh, est beaucoup plus législateur que moi il est actuellement député ban loi ngay teg ñu ne population yi y une loi en vigueur mais taxawul leen parce que loi bi dañuy bàyyi ba mu ñu xool ndax dina jàll ak du jàll amul fenn les la procédure législative ne peut pas arrêter une situation de droit mënul nekk